site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko d' Mara yow indil dama jógee Sami. ñëw ma fekk nit ñi ngi am ñu ñuy génne am koo xamante ni tànk bi eh, dafa toj. Hmm. Eh, dafa toj ñu fi benn xale bu ndaw. Hmm. man loolu laa fi jot fekke quoi. Hmm. mais li nga xamante man moo ba tax sax man ba tax di wax mooy ñun ñun Sénégal matériel bi nga xamante mom moom nyun, ñuy wax ñun di man lolu man laa xamul lan la quoi li nga xamante ni moom la ñuy wane fii material euh, euh, maanaam 4 euh, de avril boo amee matériel bi nga xamante ni moom la ñuy wane ah, anamu loolu la ñuy laaj quoi ndax lii démb ñun 3 presque 3 heures de temps 3 heures de temps ñi ngi fi booy ñoo tàmbali woon di génn di roñ ba ñi quoi mais ay martu lañ fi indi yaa ngi dégg ay loo xamante ni buñ comprendre quoi pakole sax mënuñ ko am pour maanaam pour mën a dégager li nga xamante ni moo nekk si biir ah mais loolu noonu métti na Sénégalais yi quoi man man man lu ma métti la quoi man yan man yan heure laa fi romb presque ay minuit ay minuit ay minuit fi la ma fekk waaw ay presque ay minuit trente yooyu fi a ma fekk mm. xam ñaata personne lañ génne man daal sappoor li ma gis ñoom ñu génne ko gis naa ñu génne benn xale bu ndaw ak benn femme boo xam ne dañ ko boot génne ko bi ma ñëwee bi ma ñëwee taxawee tuuti ñaari boy ñoo jël seen jakarta dawal dem dem sappoor jiitlanteeg sappoor ñii sappoor bi ñoo fi ñoo fi ñoo fi njëkk a egg si après yeneen sappoor yi doog di egg si waaw booy yi dañ leen a woo xam naa xooma ne ba xam dañu yéex a ñëw xooma ba xam jotuñu leen mais booy yi ñoo taal seen moto fii action bi mu amee ñu dem sappoor bi dem récupérer leen ànd ak ñoom ñu jiitlante ñëw fii un site d'information Sin TV nek fi ci lu lu sport culture éducation santé ba politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu une yi nga xamantene ne fay top lepp lu jëm ci actualité TV nek fi ci Fatick togal fi région ak Sénégal TV